dox di fo wey naa puurante wey naa mooy yàlla wey naa ngir mbër ma dem naa auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi yëkkati sunu kàddu ci jotaay bi di ko tàmbalee ay cant ak ngërëm ak i nuyoo cant yooyu ak ngërëm yi ak nuyoo yi ñu di ko teg ci yoxay Sëriñ Muhammadan moom seriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mu jottilul na ko ci mbooloo mi ñëpp ñi teew ak ñi teewul ak fu ñu mën a ne euh, jotaay bi nu toog noo ci sant yàlla bu baax ci ñi nga xam ne nii may nañ ñu ubbil ñu buntub ñu mën a toog ngir waxtaan tuuti ci sunuy jaar-jaar te fii nu toog di waxtaan ci ay jaar-jaar ci wàllu njàng moo xam ne nii Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko sakkoon ci nun ci ndigalam mbooloo mbooloo mu bari mën nañoo toog fii ma toog wax ci lu ëpp fuuf li nga xam ne nii moom laa ci mën a wax mu gën a set gën a leer waaye nag xaj na yàlla dogal na lii tey ci man la ko yàlla dogale xam naa li ma ciy wax sax nosu goo xam ne nii dana tax ñu mën koo jariñoo ne mu war a jariñoo eh, dana jafe ndax dama xaw a sonn tuuti takkusaan laa fi ñëwoon eh, ba léegi nii xaw na ma sonn ba nga xam ne xaj na nos ba ci war dana jafe waaye nag lu ci nekk ci ay njuumteeg jafe-jafe itam rek ñu jéggal ma ko lettre eh, invitation bi ñu ma indil maa ma fekk ca tool ya sama diggante ak taay fu aramat fukki kilomètre ab taxi ma ko indil ne ma fédération bi ñoo la ko jox di la woo ci am ndaje moo xam ne nii dana am alxemes bi ma yëree kayit wi ci tënk rek ñoom kat dañoo daje ngir def waxtaan woo xam ne nii ak exposition boo xam ne nii dañ ci wane dem bi yoon wi ci Cheikhul Khadim jaar ci Cheikh Moustapha ba fi nu toll ak xencu mboorom yoonu murit kon nun toogaay bi nu fi toog nii xaj na maanaam liñ ciy wax puso buñ sëpp ci géej lay doon seppi la cay topp liñ ciy wax nii loolu rek lay war a ngir nu tënk dañuy jël rekk nun suñu jëm suñu jaar-jaar ba agsi fii nu nekk nii bu nu waxee sunu jaar-jaar nag mooy nun sunu jaar-jaar lépp eh, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma la sunu waajur Serigne Mbaye Fallo ni mu ko doon baaxoo képp ku juddu am juróomi at juróom benn moom moom muy góor wala muy jigéen da lay jël teg ci yi sëñ bi booba itam la ci jaar ku ci ne ci njabootam fu mu jaar nu mu mel loola liggéeyu ñu Cheikh la man mi ku ñu teel a yóbbu ci loxoy sëñ bi la cib tënk rek mu jël ñu yóbbu ñu daara nu jàngee alxuraanul karim bi nu jàngee alxuraanul karim ba mokkal mu jël nu yóbbu nu njaareem albuqaatul mubaaraka ci école boobee nga xam ne nii moo ko fa defoon xam naa du sori 1957 ban fay ñëw fekk fa Serigne Moustapha Dem moo nekk directeur bi 1967 1970 71 nu am fa certificat wala boog lañuy ñuy wooye entrée en sixième foofee ca biir école ba yàlla dogal bin nu amee certificat 71 72 Serigne Cheikh am ay bourse yoo xam ni xatar gouvernement bu xatar ñoo ko ko may mu andi ko fekk na booba at ma ko jiitu itam sax am na juróomi bourse yu ko joxoon waaye juróomi bourse yi nga xam ne nii ñun ci lañ demee mun juróom lañu woon man mii di wax ak yéen Serigne Moustapha Diop njëkk moom Serigne Moustapha Diop njëkk moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu ñëpp xam Serigne Malick Dem moom Serigne Abdourahim Dem ak ñeneen ñaar ku ñuy wax Aliou saane ak Keba Fati ñooñu ñuy ay mbokk yoo xam ne nii Casamance lañu dëkk ca booba jamono ku bëgg a génn réew mi da ngay am lu ñuy wax visa de sortie dangay ngay dem ministère de l'intérieur demander visa de sortie ñu jox la ko nga jënd billet doo a a dem aéroport génn fokk bala ngaa génn da ngay wane sa visa de sortie bi Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma sàkkoo ci Serigne Moustapha Dem mi nga xam ne nii moo ñu yoroon di directeur école ba ngir mu dem ministère de l'intérieur wutali ñu ay visa de sortie bi mu demee dañ ko wax ay sart sart yam moo di ne xale yi nga xam ne ñoom ngeen di génnee ñuy dem la leen fa yóbbu fañ jëm bu ñu fay nekk at ya ñu fay nekk buñ jàngee ba noppi ak diplôme yi am bu ñibbisi waatee ci réew mi gouvernement bu Sénégal soqal ak ñoom dara loolu bi ko bi ko sëriñ Moustapha déggee ci autorité yi mu ne ah loolu kat kon naa dellu ca sëñ Cheikh mi ma yónni woon wax ko loolu dañuy nettali ne ñun boobu ay gone lañ waaye dañu ko nettali bi nga xamee ne nii ñëw na ci Serigne Cheikh ne ko moom kat lii lañ ma wax dañu ko Serigne Cheikh da leen wax ne demal nga signé ko xale yi jàngi ñoom ñi fi nekk di wax loolu ndax xam nañ bu ñuy di dellu siwaat ñibbi si fa lañ leen di fekk am déet te dëgg-dëgg bi ñuy ñibbisi wax dëgg yàlla fekk na maanaam euh, président Senghor mi fi nekkoon moom 1981 la la la la la la nguur gi ñun ñu ñibbi si 1983 84 loolu may wax noonu maanaam euh, noo ngi fii ay yenn ci ay document yoo xam ne da koy firndeel kayit wi moom la la joxoon kenn ku ne si ñun amoon na ko man yàlla dogal na ma denc sama bos ba fii may wax yéen nii kayit wii kenn ku ne ci nun amoon na ko liñ ci bind xam naa dama xul temps bi dana ko maye ngir ñu nekk di ko liiraatam déet waaye bu fekkee dañ koo liir ci tubaab eh, mi le ministre de l'éducation nationale à ah, monsieur Cheikh Ndiaye

poursuivre des études en arabe, Qatar, Golfe arabique. Il reste entendu que vous voyagerez à vos frais et sous votre propre responsabilité. À l'aller comme au retour, le gouvernement du Sénégal ne prenant à votre égard aucun engagement, ni pendant, ni après vos études. Ni pendant, ni après vos études. lii mi ngi nii dañu ko bindi signé ko kenn ku nekk yor ko da ngay dem yorale ko aéroport génn ak moom yàlla dogal na man këyit yi ba seeg maa ngi koy denc ak yeneen yu bare yoo xam ni moom mi nga ñun xam naa jëm temps bi du ko maye xaw na noo sonn tuuti waaye yeneen yu bare ngi beneen na ngi nii boo xam ne nii li ñu waxoon nii dañ koo firndeel ndax ñun daan nañu ñëw vacances léeg waaye bala ngaa dellu itam dañ lay defaat beneen autorisation attestation que ne kii mën naa dellu fa mu doon jànge bii ba tey dafay wax ne Cheikh Ndiaye mën naa dellu fa mu doon jànge parce que gouvernement bu Qatar ñoo ko boursier ci yeneen at yu loolu moom yi yu bëree bëri la maanaam xam naa yaakaar naa du fi xaj bu ñu demee ba am jot itam loolu yëpp mën nañ koo dénga gisaat waxtaane ko lii daal ci tënk mën na ne nii la jaare mooy njalbeen gi man fa ma demoon Qatar fa defee BFM falaa defee baccalauréat série scientifique fa laa duggee université maanaam ana bac plus 4 muy li ñuy wax maîtrise fii ci Sénégal ñoom ñu doon ko wooye ay BSc of sciences maa nga amoon ci physique et chimie mention bien moom itam attestation baa ngi nii yaakaar naa ne manees na ko ma ngeeg man ak yeneen kii man yaakaar naa waaw ah, fii nii man attestation bi nga xam ne nii moom laa amee sama BSc mi ngi nii ci sama kanam eh, gouvernement bu Qatar ñu wax in in the name of God most gracious most merciful provisional certificate. This is to certify that Monsieur Cheikh Ndiaye, place of birth Diourbel, Senegal, date of birth nationality Senegalese, is awarded the BSc degree majoring in chemistry, minoring in physics, with a general average score of good in the autumn of Semester of the academic year These results were endorsed by the University Council on The provisional certificate has been provided upon the request of the applicant to be submitted to whom it may concern kii itam mi ngi nii certificat bi nga xam ne nii moom laa amee BSc mi ngi nii ak yeneen bi ma ñibbisee Sénégal lañ defoon ca ba ñuy départ ne état bi amul ci yow benn lu mu war a seq ak yow booy dem ak booy ñibbisi fi ne nii am naa ay demande yu bari yoo xam ne nii demande naa ko ci ay entreprise yu baree bari yàlla dogal loola mënta sotti bi ma seete ba xam ne loolu dara sotti wu ci ma ne kon léegi man comme am naa bac plus 4 naa déposé sama dossier rectorat université de Dakar demande def DEA ci faculté de sciences bi ñu siégé daje ñu accordel ma ne ma mën na ma def inscrire DEA en énergie solaire waaba énergie solaire vraiment lu rare la ci biir biir réew mi inscrire na def naa fa at ñaari at di ko topp waaye wax dëgg ba tey eh, DEA boobu defuma ko ana lan moo ko waral moo di wax dëgg bi ma ñëwee man matériel bi nga xam ne ci laa doon liggéey ba ma nekkoon ci université bu Qatar ak matériel biñ ma indi ma gis ko fii ci université bu Dakar biñ ma woon ci université bu Dakar moo nekkoon première génération boo xam ne nii léegi moom mi ngi woon ci musée ca foofa te ñun noo ngi woon ci quatrième génération loolu xaw ma découragé ma ma ma bàyyi. bi ma jógee foofa loolu sottiwut ma dem defi école normal supérieure concours arabe. dem jàngale ji arab arab boobu moom laa jàngale de 1986 en 2019 mois de juillet ma retraite nekk na principalu franco arabe bu Daaru Salaam de 2010 à 2019 presque 10 ans loolu itam lu gudd la loo xam ne nii moom itam mënees nañu wax lu bëree bëri mën naan daal cib lii ma wax nii lu tuuti la ci li nga xam ne nii jaar jaar yi nga xam ni jaar nañ ci te ni ma ko waxee woon ci njëlbeen lii man maa fi toog di ko wax waaye mën na maa limaat ay ñeneen mbooloo yoo xam ni kenn ku ci nekk boo toogoon fii ma kii bi benn benn benn kon loolu mooy li nga xam ne nii eh, moom la ñuy seere ci liggéey bi nga xam ne nii ñun jaar nañ ci ci loolu ndigalul Serigne Cheikh Mbacke faat ma ba agsi fii nii eh, yaakaar ne wax gën ko wax nii dana doon njariñ ci xeet wi ci ndaw ñi ci seen wàccaay ngir seen ëllëg ñu bañ a découragé benn yoon xam ne nit ki bu fekkee ni am nga ak dogu am bëgg am pas-pas loo yootu mën nga caa dem mën nga caa àgg àgg ne am yaakaar na itam fi jamono toll nii eh, loolu danañ ci mën a jàngate loo xam ne nii dana dimbale réew mi jàppale ndaw ñi ngir yooyu nga xam ne moo fi nekkoon te mu lu mën nga ne lu tegg yoon loolu moom jeex ci Sénégal ba faw aleykum wa taala wa barakaatu fo wey naa puurante wey naa mooy yàlla wey naa ngir